jërëjëfati mbokk yi woy ànd ak ñun seetaan déglu mbégte ñu daal di dellu siwaat ak yéen ni ko di baaxoo di ko defee saa su ne si seen chaîne YouTube Bio Rahma di wax ne mbokk yi abonné leen suñu chaîne YouTube Bio Rahma abonné ko dina tax lépp lu ñuy waxtaane ah, di nga ko daal di xam mbokk yi dañu ne jàngoro mooy noonu njaboot te lii noonu ci njaboot ci yaatu ci li ma réew réew mi nag mu am ci lenn loo xam ne daf ca rax muy lu jëm ci wàllu coronavirus Euh, ku ci nekk ci ñun rek yëkkati kàddu wax ngir fàttali ndax suñu diine moo ne nañu fàttalante suñu biir ku ci nekk nag loo ci mën a wax rek lu ne nga wax ko mu doon fàkkuteef ci kiy déglu wala kuy seetaan euh, mbokk yi ñu daal di ñëwaat rek wax nañ leen ne raxas dañu koy loxo dañ koy raxas ba mu set wecc waaye raxas nag dafa am yoon woo xam ne daanaka day baax ñu may kiy déglu mu xam nañ lañuy ñuy raxasi gannaaw ba nga amee euh, loo xam ni defar nañ ko ngir mu raxas ndax lépp lu jëm ci wàllu microbe soo ca noppee da ngay daal di def ni sa loxo rek comme ni ñu ko waxee woon soo defee nii soloxo loxo rek nga daal def nii soo ko defee nii ba pare soo ca noppee nga daal di def nii nii baax na soo ko defee nii ba ci kanam ngay jëlaat bi defaat nii nii la ñuy raxasee soo ko defee ba pare nga daal di def nii def nii poq poqaat yi ruq ruqaat yi nga daal di ko raxas soo ca noppee nga daal di raxas yi raxas yi ba mu set nga jëlaat bi raxas ba mu set soo noppee nga def nii mbokk mi seetaan nii la raxasoo soo bëggee mucc ci wàllu corona virus jami